40 hectares moom la nguur gi jox ñi nga xamante ne ñooy les impactés du TER fii ci lagros ci dox nemmeeku bi nga xamante ne directeur général de l'APEX amaloon na ko collectif bi nag daal di wax bëgg-bëggam lu jëm ci wàllu titre foncier yi. beneen bi mooy mu promettre ni ci suñu titre yi nga xam ne tey jii war nañu ko jox. donc du ko def ay euh, droit de suivi mais s'il le faut sax ñu def ko ay titre foncier individuel jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yàlloo wax dëgg yàlla loolu surtout satisfaction la ci ñun. Abdoulaye Baldé di dalal xel yi lu jëm ci wàllu avancement travaux yi. lu des si quatorze yi aussi bu soobee yàlla di si ñetti ay bés ñu libéré quatorze hectares euh, entreprise bi dina ñëw def ay terrassement mais lu yéexal liggéey bi mooy dañu bëgg lépp liggéey bu rafet. parce que fii euh, fu ñu taxaw nii bu peut-être que mënuñ ko gis à à vue d'œil mais ay tuyaux yu bëre jaar na ci suuf ñu ngi def nañ terrassement yëpp commencé nañ def fourreau électricité bi dinañ indi ndox bi aussi du yàgg euh, donc tali yi aussi dinañ ko defar loolu moo tax bu liggéey bi xaw a yéex parce que dañu président daf ñu sant ñu def liggéey bu rafet donc loolu moo xaw a yéexal mbir mi mais si doon bu doon terrassé rek joxe terrain ni kon loolu pare nañ ko bu yàgg. taxaw temm ngir rek ñu am satisfaction totale ci seen doléance yi